donc euh, gars yi kenn ku nekk euh, ñoo ngi lay nuyu fii sa tour ak sa sant di leen jaajëfal ci li ngeen wuyu si ci li écurie Pikine Falaye balde nar a dëgmal muy lan xeex ak li nga xam ne moo fi nekk te ñëpp xam nañ ko muy Covid 19 bi nga xam ne sonal na ñëpp ci kaw loolu lañu ànd ak suñu leader leader muy Amadou Ama Ama Baldé pour organiser journée yu mel nii. wàcc ci école yi ak ci daara yi ak ci jumaa yi ak ci grand place yi pourquoi pas pour def suñu participation ci feebar bi feebar bi nag ñii dañuy laam-laamee ñii naan am na ñi naan amul ñun li ñu gëm mooy am na ñun li ñu gëm mooy am na te suñu écurie dañu bëgg ñun suñuy supporter ki nga xam ne moo nekk suñu bopp écurie aussi di Ama Baldé bëgg ay supporteram te bëggul ay supporteram am ay problème wala ñu gaañu ci ci kaw loolu moo tax ñu ne dañuy lancer journée de sensibilisation wàcc ci école yi wax ak directeurs yi def ay démonstration ak les élèves yi nga xam ne suñuy sët lañu ak suñuy doom ak suñuy jarbaat parce que xale xamul dara loo ko wanul xamu ko bu ñu demee ci seen kilifa yi nag ñu seen directeurs yi ak seen responsable yi seen maître yi bu CREG bu ñu defee ak ñoom ay démonstration buñ ko tàmmee jeex na ci kaw loolu moo taxoon ñu woo la presse pour wax leen ne ñun li ñu war a def yëpp muy sensibilisation au niveau des institutions départementales dinañ ko def commencé ko à partir de maintenant les écoles primaires la ñu ciblé les mosquées les églises et les daara te ku nekk xam na ne foofu ay xale ñoo fa nekk te comme ni ma ko waxee xale yooyu suñuy doom lañu ak suñuy jarbaat ak suñuy sët donc ci kaw loolu je sais pas s'il y des questions à poser euh, pour les journalistes ku ci am question booy laaj nga wax bu ko defee ñu tontu la par rapport à cet événement s'il y pas question aussi on continue donc nous allons démarrer euh, cette journée dans le département de Pikine. Ouais. Voilà. Uhum. Uhum. C'est ça. C'est c'est ça. C'est ça. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. Baldé voilà très bien xam bien dit que ne Ama mooy tête de file écurie Pikine fallay Baldé mais ci écurie bi la bokk te ñun ñi toog fi yëpp ñun nous sommes le bureau de l'écurie Pikine fallay Baldé moi qui te parle je le président le secrétaire tout le monde est là mais empêchement day am te affaire u làmb la ñëpp xam nañ am loo xam ne moo ko téye boobu ba tey maa ngi ciy insister ci loolu mais dan ma ne ñoom pareeguñu lu ñu pareegul nag le président ne peut pas prendre le risque indi ko par force mu ñëw parce que affaire la yéen a ma ko gën a xam vous les journalistes du ma dugg trop ci biir mënu ma ci sori foofu laa ci mën a yem mais en dehors de Ama c'est pas Ama uniquement qui fait l'écurie Pikine Falaye Baldé d'accord c'est le leader mais les autres sont là prêts à répondre à toutes les questions donc euh, si gàttal loolu rek laa ciy tontu quoi te xam ne aussi bon incha allah bu paree d'ici euh, ñuy commencer suñu distribution ndimbal yi ñuy yóbbu il va nous rejoindre incha allah quoi voilà c'est que aussi rassemblement bi comme le préfet l'a di rassemblement bi préfet bi ñun caravan sax la ñu waxoon ak moom mais le préfet a dit que comme que am na arrêté yu gën a comme quoi que bëgguñu caravane bëgguñu aussi même lii sax dañu ko tere woon nañ ne wax dañ ko def dans la plus grande sobriété mais fu ñu waxee écurie Pikine Falaye balde teg ci Ama ñëpp xam na ne kenn dootul mën a téye sa bopp alors ñëppay ñëw moo tax ci kaw loolu mu bëgg a sensibiliser euh, dëkkuwaayam Pikine sensibiliser ay supporteram sensibiliser ay andi jàmmam comme quoi que feebar bii nit ñi di laam-laame ba mu jaral ñenn ñi nga xam ne du ñu sol ay masque sawaay te ñuy nekk ay nitam ak ay supporteram ñu jàppale ko ci parce que ni mu leen bëggee ñooñu noonu lañ ko bëggee bu ko defee ñuy sol ay masque di moytu teg mesure barrière yëpp moo xam saabu bi la moo xam masque bi la moo xam gel bi la donc ci gàttal daal loolu laa mën a tontu par rapport à ça une fois de plus daal affaire u làmb la quoi te ñoo ngi ciy jégalu bu baax quoi voilà voilà yaa ma gën a xam li may wax voilà amiin amiin. ngeen jëm ci combat boo xam ne combat royal tey ñuy wax ne waxu huis moo mhm. mën a am. Mhm. loolu am. Mhm. am na ñu force porte bi dugg ci ñu toog ci kër gi xaar leen ngeen dem yow fi fi nga fi nga daane la rek foofu laa lay laa lay kiiwee dañuy ñaan yàlla huis clos sax bañ a am avant loolu comme ni nga ñaanee yàlla feebar bi dañ nu mu gën a gaawee ñun foofu rek la ñuy taxaw di ñaan yàlla mu gaaw a koo dindi bu ko defee kenn ku nekk dellu sa activité quoi voilà mais quant à huis clos non huis ak leneen lool ñun nous n'avons pas cette responsabilité là y a l'État qui est là y a le ministre des sports qui est là et cetera et cetera ñoom bu ko waree dindi rek dinañ ko dindi quoi mais ñun munuñu foncer wu ci huis clos ak non huis clos dañuy ñaan yàlla kay daal bañ ci eggee ak jàmm ak salaam mu bañ a am huis clos bu ko defee ñi bëgg dem yëpp mën a dem seetaan yi ko waaw waa waaw waaw waaw dalul dalul leen rek ah waaw kooku waxam la il a le droit il a le droit waxu làmb la rek waxu la làmb la rek comme ni ma ko waxee rek ñun buñ ci tollee ñun tamit incha allah dinañ ko gis ñu gis koo fi tudd léegi no non soxlawu ma ko soxlawu ma ko parce man géré wu ko man ki ma géré rek man ki ma géré rek ah waaw baax na ba tey rek ñun ba tey baax na rek buñ ca egg ak jàmm ak salaam daal dinañu gis moom it dinañ euh, dinañ ko gis xamante nañ xam naa benn benn combat xam naa leen bàyyi ñoom bàyyi ma ñoom rek moo ñu tax a fi mu toll nii ànd ak sénégalais yi ñu daan ko xool. ñu ci corona bi rek waaw ñu ci sax ci làmb. existé na ñu ngi rey ay kilifa yu bari fan yi ñu nekk wóor na ñu nekk am fan bu taxaw na sama am na wax la ne am fan yi ñu gis kilifa yu bari dem donc nag looloo tax ñu gën a sensibiliser ay kilifa yu bari dem bon, comme question contre C'est bon, des questions pour le grand frère de Ama, Jules Baldé. Fiana. waaw. lii de lu baax la ndax lii lu baax la ndax fi ñu toll feebar bi mu rey ay kilifa dañuy nekk hôpital ñoo gën a xam loolu. feebar bi moom xale mag ñëpp war a takk max laal zel moytu moytu dafa baax. te feebar bi dafa garaaw trop feebar bi dafa të gars de mhm. du të Amérique Japon Chine France Italie Espagne mhm. Allemagne mhm. moo jaaxal Sénégal du jaaxal dëkk yoonu xaju Sénégal nañ moytu moytandiku baax na trop fagaru gën faju waaw looloo tax moo tax ñu def lii ah mu ngi fi non bu heure heure feeñam jotagul déggoo li wax de non foofu tollagu yow yow feebar boo xam ne moo tëj monde bi ngay wax waxu làmb yow lii nañ jéem lii dañ yow lii mooy mbër boo xam ne kenn mënu ko ko ko daan non làmb heure làmb bu jotee xam xam nga ma xam naa la xamante nañu nañ wax si lii mu ji mbër bi nañ ko jéem a daan bok fii toll mbër ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lô ñoom Ama ñoom Bombardier ñëpp song nañ ko ñu ko daan Amérique wax nopp nañ jéem a daan lii bu daanee rek après jub si loolee waxuñu promoteur gambe yooyu lii feebar bii nañ ko jéem a daan bu ñu feebar bi rek xoola lamb fu mu nekk mun na fa am heure bi la jot xam lu nekk lu nekk ba mu jotee xam nga ba nga jotee wax heure bi nga jot mun a am mun a wax heure bi la affaire bi tembare ndax feebar fi toll dafay gën a yokk dégg ñu ne beneen feebar moo beneen bu génn deuxième vague bi. beneen boo xam moo gën a garaaw bii kon war nga bàyyi sa xel xam ne kon il faut mu def li pour mobiliser gars yi gars yi gën a gën a fagaru. beneen question. une autre une autre question. ne ñun ñett yéen ñii. une autre xam nañ xiib leen dañ ñoom waxal waxal ñeneen autre question. wax bu ñu ay xiir yooyu yooyu tollaguñ fa yow bu ñu tollee yow man après rek yow mais wax si liir na lii jugee fi rek na feebar na feebar rek na feebar jugee feebar jugee rek. ëllëgee boo ñëwee li nga bëgg a yóbbu di nga yóbboo xool nga naa la camion ndax day diis nañ wax si lii quoi bu waxee lii ba pare ëllëgee boo ñëwee pour làmb ja da nga yóbbu lu bëri. waaw tollaguñu foofu xam ay bàyyi xel ay yooyu yëpp tollaguñu bu tollee rek da xam bàyyi nañ xel waa bàyyi ñu xel c'est bon ok ah maa maa ngi nuyu waa presse kooku Modou Lo du ah. ama mënut a dëkk ak ay doomu Cheikh Cissé ay jarbaatam Modou Lo ba nga nekk mbërëm mënut a nekk mais Modou na du ñeexum ñebe de ñun du ñu ñeexum ñebe xam nañu laaj Malick Niang ñun fi ñu jaar bëri na te ñooñu Malick Niang Modou est-ce que Modou roi bokk yam Modou Lo xoolal am na problème nga xam loolu. cey pikin yaa ngi biir xolu Pikine Gomis amaak man amaak man Modou Lo du mbër waaw. Ah, ku dul mbër dina nekk roi des arènes. sans que monsieur mën yem ak amaak man. ñii ñëpp ay soppe Ama ay mbokkam ay sërëm ay frère ay mère kilifa gi tur bi. man Modou Mbacke Modou Ngom laa tudd. lii lii lii nii man maa jiite commission médical ak social bu écurie Falaye Baldé. lii tey bu ngeen ko estimé ci xaalis ñaata la. waaw somme bi nag bëri na parce que li fi nekk ay masques ëpp na ëpp na ëpp na 7000 masques. donc gel yu nañ fi aussi eau de javel am na fi. mais li taxoon li njëriñ si rek moom mooy tey jii nii dañu jub benn benn xeex bu metti boo xam ne moo jiitu le combat royal bi ñuy wax. tey amaa mun ta nekk mun ta nekk ci koñam di gis ne tey corona mi ngi yokk. man hôpital Fann laa nekkoon xam naa ci lu bari mi ngi yokk décès yi ngi bëgg kilifa yaa ngi ciy dem te bëggul ab kilifa yi nga xam ne tey jii ni ñoom la yaakaar ëllëg tey jii dara leen dal loolu moo tax au moins muy mun a naa dajale sama waa koñ dajale écurie bi li ñu am lépp ñu jëm koo séddale Pikine moo waral initiative bi loolu moo waral initiative di ci remercier bu baax a baax ministère de la santé bi nga xam ne jàppale nañu di remercier bu baax tamit Aly Ngoye Ndiaye di remercier tous les partenaires parce que kenn ku ne indi nga sa yëf pour pour au moins journée tey bi mën a mën a am njëriñ léegi nag on va faire le tour des daara ak ak yi distribuer li ñu mën distribuer ak jàkka yi aussi bien ak église di ngeen séddale ji parcelle. waaw non non duñ fa dem parce que. non bay ci sa wew buñ ko daanee nag incha allah mën naa am ñu dem ñu séddale ci bële. Ah, foofa décourager bala moo tax. waaw mais xam nga li ma bëgg wax rek mooy fii lañ dëkk Pikine lañ dëkk noo rom fi nga dëkk dem di bay dem di balel balel balel jàmbur déedéet bala ngaa bale da bale sa buntu kër pare. yow maa la gën a kontaan merci beaucoup. Ah ngi ni yow awa ama maa ngi lay ziar. maa ngi doon ziar. awa sa masque sa mbër di joxe ay masque ki yow yoroo masque yoroo zel. naa masque léegi li Ama def nii noo ko gisee. Ah, loolu lu rafet rek la def. comme que dañoo nekk ci feebar kay. nañ fagaru rek. Mm-hmm. fagaru pour corona bi. pour corona bi waaye. Modou fagaru pour moom. kooku lu ñuy fagaru ci moom. da dul danger. non a ah ñun de du danger ci ñun. Modou Lo. Modou Lo waaw. du danger. du danger. du danger ci Ama. non non xanaa xamoo Ama yow. déet xaw ma ko yow laa koy laaj. ah, ah. du danger ci ñun. Ah. Mm-hmm. kon daal bés ba yaakaar nga ne du metti non non am mën na métti ndax ñaari goor yuy jàkkaarloo lañ mais dañuy ñaan yàlla rek fekk ko jàmm yàlla ma ñu ndam ñu ci barke Serigne Babacar. pare ngeen. yàgg na. Mm. bu nekkee dimanche sax pare nañ. huis clos bëgg ngeen. bëgg nañ lu mu doon bëgg nañ. bu dee Léopold Senghor. lu doon bëgg nañ ndax ñun xam nañ suñu mbër. Mm. kenn du moom ci réew mi. ragalu ngeen ci Modou dara. non <laughs> am amul ragalu kaay. Mm. kooku année mu juddu ragal juddu ci. ci awa am ana Sidi. mi ngi fi mu ci jàmm. sa waykat ba. sama waykat sama papa sama xarit sama lépp sama lépp. ndeysaan. Mhm. mel ni awa awa amaay dafa ñime féete de. waaw ragal féete day xañee wërsëg. yow daal ama rek. kese ñoo ma ñor keneen ñoruma ci réew mi. ama Sidi rek géej gi fer. kese ba géej gi fer. ba géej gi kontaan ci awa ama. kii du magi ama bi moom it xame naa ko de. ngi nii yow. mbokku ndey koy jur xajatu boo waxut ci xew mi xew mi du baax ak yow rek xajatu balde balde balde yaay booy ma làkki pël boo xana ah. dégguma olof dégguma olof donc lii ama daf ko woote ànd ko ak écurie Pikine Falaye Baldé pour jàppale njaboot gi d'abord parce que lii li muy na ci foule dafa bari te comme li ma ko waxee ci kaw sànq noonu laa koy waxewaat Ama nee na ay supporteurs am dama leen bëgg ngeen bëgg ma te bëgguma ngeen gaañu te lii dafa am moo tax ma bëgg a joxe euh, euh, masque yi nga xam ne moo fi nekk te écurie Pikine Falaye Baldé dajale ko bu ko defee ñu yóbbu ko ci école yi yóbbu ko ci jumaa yi yóbbu ko ci église yi yóbbu ko ci daara yi pour jàppale xale yi bu ñu demee ni ngeen di waxee ak ñun nii noonu la ñuy waxee ak directeur d'école yi ne leen affaire bi am na jàppale leen xale yi xale xale rek la xamul dara. xale xamul dara li ko gars yi wax rek loolu lay def buñ demee génne ñaari xale takkal leen masque jox leen gel ñu diw seen morom yëpp gis xale boo ko wanee rek mu def merci xale boo ko wanee rek mu def ci liggéey boobu nag la ñuy waaj a sóobu léegi léegi léegi une fois de plus di remercier nag suñu parent Aly Ngouille Ndiaye on ne remerciera jamais assez parce que moo ñu gunge de moo ñu ñemeloo aussi te lii ñëpp xam na ne cause noble la cause noble la pour jéem a aar njaboot gi jéem a aar njaboot gi et comme ni ko Bachir waxee yemuñu fii de mu ñu paree dans la région de Dakar ñoo ngi attaqué ji Bignona bu ñu paree Bignona Ziguinchor après Sédhiou après Kolda terminé nag chez nos parrains chez notre parrain à Linguère fa lañ jëm fa lañ jëm suñu mbokk njaayeen yi ci ci njaayeen yi lañ jëm waaw ci njaayeen yi lañ jëm ci njaayeen lañ wax leen li ñu Aly Ngouille Ndiaye gunge ak ni mu àndee ak ñun ci àndin bu rafet ñoo ngi koy remercier nag Ndiaye Diatta ñoo ngi ñëw waaw.